suñu candidat mu ngi fii mu ngi ci jàmm ak salaam. <laughs> nekkatul premier ministre. <laughs> premier ministre loolu. jaaroo nekk premier ministre nekkatul premier neel neel. <laughs> waa dem këram làkk noonu lañ doon doxale primature moo gën muy jël ay trente conseillers ak vingt conseillers mel na kuy gouverner. gouvernement de la primature la wax xam nga la la fi mu ne nii xam nga xam nga instant yi da ngaa nekk du gis ngeen de. gouvernement primature lañ nekk xaw ma xat boo ci gouverner bu baax bi am naa ne daal bas moom noppi na may na cel kële nag day nomm wax ba day dem ay kolom yéen nekkate honorable ruube rek lay def homme d'état de nekk homme d'état xam nga état ak sëriñ ak docteur ñi secret moo leen lal moo leen wër mhm. sëriñ du ku ku mu waxanteel wala ku mu gis génn wax ko génn wax ko tout à fait euh, euh, mhm. ñi muy faj mhm. ak ñiw li muy sekk ak ñoom du génn ci télé bi di ko wax état aussi du muy doxee lu wundu état buñ ko te tegee fii kenn dootuñu gouverner parce que secret moo ko wër mhm. da ngay dañuy jéem a roy ci ku mel ne Juba Leyti-Ka mhm. euh, ñoom Moustapha Niass mhm. nekkoon feeg Diouf Senghor Wade ñëw euh, ku mel na Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm yërëm Juba leyti aussi ku mel na tey Abdoulaye Daouda Diallo jaar ci poste yu ne nekk quatre ans ministre de l'intérieur xam lu bari dégg naa sa xarit maye cell maye pat noppi te di jëf donc état. def am nekk sa xarit moo tax nga wax ko. non c'est que d'état la xam nga homme d'état. Hmm. yombul xoolal président Macky Sall ak jaar-jaaram. Hmm. nekk directeur pétro Petrosen ministre de l'intérieur ministre des mines l'énergie wala ñe ñekkaat euh, ministre de l'intérieur nekk président de l'assemblée nekk premier ministre nekk président de la république ah alors wax yi mu dégg fi yëpp bu ci nekk mun na la mun na ko teg mu justifier que ne nii la ak nii la mais mu maye cell rek bu li jot war a li ñu war a wax bu ñëwee mu wax ko. Mhm. mais du lépp la ñuy wax du lépp la ñuy teg ci mbedd du lépp la ñuy siiwal àddina du doxe noonu état du doxee noonu. Mhm. nañu jéem a roy ci lay some d'état. Mhm. ñi nga xam ne nag vrai homme d'état lañ. mbir nag boo ko jàngul doo ko tari. ñàkk xam la qualité qualité bi njëkk ci homme d'état lan la. mooy li ma la wax sànq parce que boo déggee état dafa am lu nekk ci biir am lu ko wër te du ñépp ñoo war a xam lu nekk ci biir maanaam muy secret mun a denc secret mën a xam lii kat dama ko sekk ak kilifa lii dama ko yore parce que lii dafa mooy maanaam moo moom mooy li sécuriser suma réew donc loolu foog nga nekk nit koo xam ne dangay denc secret mm. waaye ñëw ci jàkkaarlook télévision monde bi ak suñu télé yépp nga ne démb ministre de la justice jox na ma dossier nangam nee naa ko nangam état du doxee noonu kër sax du doxee noonu yow li ngay wax ak Maymuna ak caméraman bi lu muy wax ak yow ak keneen lu do doxee naan lii la parce que mm-hmm. léeg-léeg sax nit ñëw jëw ci yow nit nit ñëw jëw président de la république nit ñëw jëw député wala wala donc mais du lu ñu wax rek nga tekke ci télé bi naan lii la état du doxee noonu li ci jiitu mooy secret. d'accord.